ñu nuyu tafsir Abdourahman tafsir gannaaw bi la nuyoo ba nga fay nuyoo ñu lay ñaan fatihatul kitab muy fatihatul kitab bi nga xamante ni ñu ngi koy jàng vingt-deux fois minimum par jour ndax boo jullee fajar di nga julli ñaari rakkay fajar bu ci nekk di nga ci tari fatiha booy julli suba ñaari rakk yooyu bu ci nekk di nga ci tari fatiha booy julli tisbaar di nga ko tari ñeenti yoon booy julli takkusaan di nga ko tari ñeent yoon booy julli timis di nga ko tari ñetti yoon waaye bu fekkee yaa ngi julli gée i tamit di nga ko tari ñeenti yoon ñaar yi benn bi witre loolu moom c'est le minimum dog booy def di nga jàng fatiha waaye naafila booy def saa yoo sànnee kàbbar di nga jàng fatiha waaye dañu bëgg nag bu émission bi di jeex nga tinki ñu tamit jàppale ñu ci salaatu tasbiha bu ko defee jullit bii di ñu déglu émission bi day jeex waaye guddi gi day continuer hatta matla'il fajri bu ko defee dañu ne nañu taxawal guddik laylatul qadri bu ko defee mën nga taxawal naafila boo mën soo mënee def salaatu tasbiha tamit nga def ko ndax salaatu tasbiha boo ko defee bàkkaar yi paase yi fi ne ak yi ñëw yëpp yàlla dala koy jéggal bàkkaar yi nëbbu bàkkaar yi feeñ ya nga tey ya teyul yëpp bo jéggaloo sa borom nga nafila nafila bobu ñaan suñu borom yàlla mën na la defal sutura jéggal la mboolem bakkar yàlla nañ ko yàlla defal khali usman ñu jox la nga nuyo te nga duggal ñu ci suratul fatihatul kitab barakallahu alhamdulillah alhamdulillah alladhi sharafana bi hadhihi al-lailati al-mubarakati tashrifa وعرفنا ما فيها من الخيرات والبركات تعريفا وكلفنا بما فيها من الطاعات والخيرات تكليفا وضاعف لنا فيها الحسنات والأعمال الصالحات تضعيفا أحمده سبحانه وتعالى إنه كان بنا رحيما رؤوفا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي كان بكل الخيرات موصوفا اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه ما دام الخير مألوفا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام شريف دفنا بنيو لنيو فتبارك الله نيو لنيو بلاتو بيب ما شاء الله نختي léeg-léeg li ñuy jàngale fa tabaarakallaahu faaw ñu koy jëf mooy bu mbooloo àndee bu kenn nuyoo nuyu na ñëpp dëgg kon ñi nga nuyu sa nuyoo moo gën a foor sama nuyoo man manoon naa nuyoo yow nga ñëw nuyoo sama ginnaaw ndax yaa gën a foor sa jëmm ji moo gën a foor sama jëmm ji kon sa nuyoo mooy gën a foor sama nuyoo waaye ku sërif nuyu ba pare fa tabaarakallaahu defe naa tafsir abdourahman bu la nuyuwul feeñul ndax kilifa gi nuyu na la ah, ñu jaar ci yow ndokkeel mbooleem ummatu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci guddi gi Cherif ñu nuyu mbooleem téléspectateur yi nga xam ne nag heure bii ñu ngi seetaan seen télévision bi di 2STV waaye di seetaan lii nga xam ni tey 2S fa tabaarakallahu dañu bàyyi ay émission yu bari ngir lan daal ni jullit yi tey ñu ngi toog seeni kër ndax dañu leen a wax toog leen seeni kër ñenn ñi ne nañu toog suñu kër ngir lan xeex lii nga xam ni fa tabaarakallaahu mooy mbas mi ci àdduna bi dees ni kon jullit yooyu daan dem ci jàkka yi jullit yooyu daan dem ci jumaa yi jullit yooyu daan dem ci tànt yi daan daje ak ay shérif maamin daan daje ak us eh, imam Pape daan daje ak ay imaam Xaadim Guèye fa tabaarakallaahu ñooñu nga xam ne ñoo daan dem di daje ak ñooñu macha allahu duñu leen xañ Chérif Maami du ñu leen xañ imam Pape Samba du ñu leen xam xaa xañ Xaadim Gueye waaye nag du ñu leen xañit nag alquran ndax jotaay bu ñu masane muy jàkka muy juma deses ni suñu téléspectateur yooyu dinañu góor góorlu ñun ba fexe fa ñu toog ca seen biiri kër fa ñu toog ca seen biiri néeg ñu def ko jàkka nan la koy defee jàkka mooy dinañu leen indil Chérif Maami en direct jëli leen fa tabaarakallaahu daara ja nekk ca taseet di quinze wala dix-huit kilomètres de Thiès ma jaar ci sax nuyu meeru taseet fa tabaarakallaahu di Momadou caw waaye nuyu soxnaam di madame Thiaw dinañu dem jëli daara jooju defal leen ko direct ci télé bi nga xam ni kon dañuy dem jëli alquran indil leen ko seen biiri néeg donte alquran a nga fa waaye dañ leen di indil alquran joo xam ni yëpp a piire waaye alquran ji nga xam ni moom wóor nañu ni bu ñu ko jàngee yàlla nangu ko xam nga lu tax Chérif mooy alquran joo xam ni majorité ba koy jàng kenn majoru ci bu ñu ko jàngee yàlla da koy nangu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu wax ni nabi ne anna taalima alsigaari li kitaabillahi yutfiu gadab allahi ay xale yu majeuragul bu ñu toogee di jàng téere yàlla bi bu fekkoon yàlla mer day delloo meram bu fekkoon yàlla di bëgg mer day foom mu mer ga léeg-léeg suñu borom subhaanahu wa taala dina yebal malaaka ni ko demal Sénégal mooy ga bari na caaxaan ga bari na ñu ngay xiiroo ñu ngay ŋaayoo ñu ngay nangam nangam ñu ngay bokkaale yàlla ñu ngay lii ñu ngay lele demal dëppërñil ma suuf sa waa Sénégal yépp nañu alku bu malaaka mi ñëwee ba xool xool nday jooram xool càmmoñam xool penku xool saw ni ko borom bi pare naa de yow rek laay déglu mu ne ko amul kenn kuy jaamu yàlla foofu mu ne ko mag ñi doon jaamu yàlla sax ci waxin dañu koy def ngir ngistal waaye sellul suñu borom ni ko lu am foofu lu ma war a neex loo gis lu ma war a neex foofu ci réew mi malaaka mi ni ko yaa rabbi am na xale yoo xam ne day ñu nga pënd ñu nga poussière seen bàyyi yaa nga leen jël yóbbu leen ca daara ya ñu toog di jàng sa téere bi yàlla ni ko ah, rus naa xale yooyu xale yooyu du ñu ne ci am réew man yàlla may alag réew mooma kon rus xale yooyu waral na man yàlla fomm naa sama mer waral na man yàlla fomm naa mission bi ma la joxoon bàyyil waa réew ma te nga ñëw dellu si man am léegi ñu tuub kon bu deux demee jëli daara fa tabarakallahu muy góor ñi nekk daara complexe islamique xalifa Ababacar Gaye radiyallahu taala anhu dem jë dawaat 15 kilomètres ñëw Thiès jël daara joo xam ne jigéen ñi la muy daaral xaaji Masamba Mbeng yal na yàlla dolli leeram fa tabarakallahu yal na yàlla xare ko aljana ñu jël ñaari daara yooyu jox la ko ci sa écran ni la xoolal jigéen ñaa ngi nii di jàng góor ñaa ngi nii di jàng jigéen ñi ñu ci ëpp majeur ñu góor ñi ñu ci ëpp ñu loolu ala kulli xaal ku mu neex ak ku naqari day neex yàlla te yàlla saa ko neexee rek mu faj suñu aajo kon fa tabarakallahu ñu sant 2S ñaanal leen yàlla ci loolu ñu def ndax loolu nag yombul waaye Chérif ñu def ko ci guddi goo xam ni bala may ñëw ci sa suratul fatiha guddi gi ñu ko def gis nga yii daje yépp yi gën ñoo daje ci guddi gi xam nga ni Cherif weer yëpp li gën a siiw ci téere yi mooy weeru koor a ci gën Cherif xam nga ni at yëpp li ci gën mooy jamono yëpp jamono ji yonent yàlla Muhammad doon dund muy 63 ans wam bi mu juddoo Màkka ak bi ñu ko dencee Medinatul Munawwara moo gën ci mbooleem jamono yi nabi nee na xayrul quruni xarni siècle yi gën ci siècle yi mooy sama siècle man sayyidna Muhammad waaye mbooleem dëkk yi Cherif dëkk bi moy makkah al mukarrama ak medinatul munawwara ñi dañu ni makkah gën medine ñi ni medina gën waye li gëna ci moy makkah gën xam nga lutax moy makkah moy dekk borom bi subhanahu wa taala medine moy dekk yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam waye yàlla ak yonent bi dal xam nga lan la moy ahad ak ahmad yalla ay ahad jël sayyidna muhammad ni ko yaay ahmad xam nga lan mo wuté ahad ak ahmad ahmad dindil mim gi luy dess ahmad bo dindé mim gi luy dess ahad ahad bo ci défé mim luy doon ahmad ahmad kon ndekete ahad ci boppam la génne subhaanahu wa taala ba muy génne dara wàññikuwul ci moom bind ci ahmad mooy ana min allahi wal muminuuna min nii ay ana min nuurillahi wal muminuuna min nuuri maa jóge ci leeru ahad man ahmad waaye ci sama leer man ahmad ci ngeen jóge yàlla ni ko sa miim googu nag xam nga lu muy firi mooy innaka mayitun wa innahum mayitun bàyyil xel ni da ngay dee waaye man yàlla du ma dee kon nag li jóge ci ahmad jooju ku mu doon ku ne da ngay faatu kon makka ak medinatul munawwara ñoo gën ci dëkk yi nee ma wax nga dëgg wax naa dëgg wax waaye boo jëlee mbooleem bés yi mbooleem guddi yi mbooleem bëccëg yi imam Pape Samba wax na ko guddik laylatul qadri moo ci gën Chérif gis nga gën dafa am ay façon am na koo xam ne moo ma gën Chérif maa mi moo ma gën lan la ma gënee Chérif bu ñu doon xool gënee na ma fukki point waaye Chérif maa mi bi mu ma gënee moom fa tabaarakallaahu imaam Chérif a ko gën Chérif euh, imaam Chérif gënee na ko téeméeri point waaye imaam Chérif bi mu gënee Chérif maami moom it Seydina Muhammad maama ma ko gën Seydina Muhammad gënee na imaam Chérif junniy point ليله القدر نك موم بو نخوله نان لا گني يرين گودي يالا داف كو واخ امام باب سامبا جان نكو ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر ولا ليله القدر خير من الف شهر تورس تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم ليلة القدر جس نغي مو غني غودي موي جوني كوم نيما لا جيلاني سامام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غني امام شريف يالنا يالا دولي ليرام تي تاجو تي باركيم جوني تومب تي واخين بور nga deg ma ليله القدر يالا ني سبحانه وتعالى القران با القران دك لولا يالا ني وما يدريك واخو لكو وايا لوم لا ني وما ادراك رك دينا لك واخ القارعه ما القارعه وما أدراك ما القارعة يعني أهكي من يوم يكون الناس كالفراش المبصوص وتكون الجبال كالعن المنفوس بمجيخ يلني وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا بلوكو وخمك كن إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر يعني أهكي من إلى ليلة القدر خير قد قد قد ليلة القدر أت جني أت يؤمل قدك ليلة القدر nga jaamu yàlla ci guddik laylatul qadri moo ëpp doole xam nga ban jaamu yàlla mooy li nga doon wax léegi mooy ki yendoo woor mm-hmm. te moment bi muy woor mu ngi yor jaaseem di xeexal lislaam mm-hmm. bu xeexee ba dog jot mu naan ndoxam dog daal di dem teg jaasi ji julli timisam bu sëlmalee timisam dinaa fi la ba gee jot mu julli gee bu sëlmalee gee dinaa fi la ba fajar jot mu def safaak huit heures julli fajaram jëlaat jaaseem di xeex te du nelaw benn yoon pendant mille ans muy dix siècles junni at yoo xam ni kii nii la ko jàppoo di ko def di ko def di ko def ba junni at yi mat yàlla nangu junni at yi mboolem koor gi mbooleem xare yi lépp li mu def suñu borom subhaanahu wa taala nangul ko ko bu ko yàlla fayee yow sërib maami guddik laylatul qadri nga julli ci ñaari rakka ni asalaamu aleykum dem tëdd sa néeg taal sa climatiseur bu la ko yàlla faye yaa ëpp tiyaaba borom junni at yi lu ci nit man. ah guddi gi màgg na mooy xayrum min alfi shahrin lan moo ko waral nag mooy Sam'un al-Ghazi du ma ci dem ndax day day jël temps bi. léegi guddi googu nag nga xam ni moo gën ci guddi yi wax naa la ni la jamono ji gën ci jamono yi mooy sa jamono yi maam. nee naa la dëkk bi gën ci dëkk yi mooy Makkatal Mukarram. nee naa la guddi gi gën ci weer wi gën ci weer yi mooy weeru koor nee naa la guddi gi gën ci guddi yi mooy guddik laylatul qadri waaye téere bi gën ci téere yi mooy alquranul karim waaye alquranul karim mi gën malaaka mi gën ci malaaka yi moo ko jële ci yàlla wàcce ko muy jibril innahu la qawlu rasulin karim zi quwatin inda dil arshi makin mutaain samma amin wa ma saaxibukum bi majnun wa laqad ra'aahu bi lufuqi lmubin wa ma huwa ala alghaybi bi danin wa ma huwa bi qawli shaytani rajim fa ayna tadhabun in huwa illa dhikrun lilalamin liman shaa minkum an yastaqim wa ma tashaa'una وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم كي يالني كوور تي من لا ما كوولول سما بوب كوكو غنول تي ملائكه هكاي واخا بي غن غن يي بنيو داجي يالا واتي القران بوبو تي بي مالا ci weer wii ma la wax ci guddi gii ma la wax malaaka mi wàcce ko ci ki gën ci lu yàlla bind muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye guddi gee gën waay ah? xoola yi daje rek gën gën yi daje rek xam nga yàlla mënoon naa jël guddi gi gën mu wàccee alquran te fekk alquran gënul ci téere yi wala boog mu jël alxuraan mu gën ci téere yi mu wàcce ko ci guddi goo xam yeneen guddi yee ko gën mhm. waaye yooyu gën dëkk bi gën jamono ji gën wër wi gën guddi gi gën malaaka mi gën téré bi gën mom lañu wàcce ci ngën ji mindeef ngën ji mindeef diko sotti ci ngën ji xeet ndax kuntum khayra ummatin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar kon loolu moy guddi laylatul qadr allahu akbar waay waay waay waay waay Chérif waay waay waay ñaanal 2S waay. parce que lii yombul ah. ah président chance bii mu ñu may vraiment ah lii lii lii ñu ñu may lii yombul. Ah, macha allah yal na yàlla dolli doole El Hadj ak mboolem équipe bi yëpp fa tabaarakallah